leeral say mbir ba mu leer nañ. ak ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa. jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen sant bu baax di leen gërëm ci euh, ni ngeen ñu joxee bopp ba tax na li may wax chaque jour rek euh, ñëw xëy benn jour toog ndax làmb rek moo ñor. te yéen tamit xam naa ne làmb leen intéresse moo tax tey ñu seet si ki nga xamante ni mooy Père Omez euh, di ko bàyyi mu nuyoo ba noppi ñu doo ko wéyal waxtaan bi Père Omez nuyu naa la. Euh, Ouzin maa ngi lay fay euh, di nuyu waale sa équipe bi nga àndal di kontaan vraiment ci visite bi ngeen def nii ci man comme ça ñuy wax waxtaan waxtaanu làmb waxtaanu sport en particulier. loolu dañuy ñëw ci làmb. ndax te euh, au xam nañ ko ci làmb am na loo xamante ni jot nga koo def ci làmb ndax boo taxawee esaat euh, làmb am euh, boo boo taxawee ñi nga xam te dañu doon làmb di nekkee pe au moins la entraîneur Tapha Tine la woon mën nga ñu ci loolu tuuti. waaw mais en effet parce que li may wax sport man xam nga dama am li ñuy wax jàngatu il làmb jàngatu sport avoir une bonne culture sportive am benn représentation li ñu xaar ci yow ci sport parce que boo juddoo. yàlla xiir la yenn yenn comportement yi discipline yi ne du ko def je te parle j'ai ans et tous les jours de 15 heures je suis au terrain avec les gars jusqu'à 18 heures donc tey ñu am 68 ans di ko def je crois bu ñu leen lim tey matuñu bariwuñu donc mais sama c'est dans ma c'est dans ma mentalité et ma formation militaire qui m'a permis aujourd'hui ma am euh, qualité boobu pour man di accompagner ci xale yi donc euh, bu ma nekkee euh, si lamb ji en 2008 mais dafa fekk. mais balaa ñu ciy sori da nga nekk parcelle dafa atteindre entraîner Médina su ma juumul. Euh, lan moo waral affinité yow ak moom boobu ndax am na fi ay écrit Zos moo la gën a jege Golf Gaynde ngi fi Balla Gaye ngi fi ñeneen ñeneen Rock Énergie ngi fi nga jóge fii dem ba ci Tapha Tine lan moo waral distance boobu. mais voilà donc tu as posé xam ne dafay cheminer ak bu njëkk bi. donc voilà dafay cheminer parce que boo nekkee armée dañ lay inculquer benn travail tey nii euh, da ngay bëri ay discipline yooyu def soit di nga benn discipline bu spécifique mais ñun dañ ne amoon temps boo même football basket karaté judo euh, yoga même le yoga man def naa ko avec le major Bari Tidiane Bari donc discipline yëpp natation discipline yëpp lañ koy def parce que pour avoir le CIA il faut nga def pratiquement même la même la nage dang koy def même bu mënul fay da nga jàngi fay donc loolu mooy permettre tey le militaire am une bonne formation de base. bu fekkee ne nan nga jógee benn grade pour bu dem benn grade pour nga am le CIA le certificat international d'armes donc je loolu di nga fexe ba am yooyu yooyu yëpp donc loolu moo moo waral loolu mais li tax nag aussi ma am euh, connaissance euh, au niveau de des Parcelles Assainies dem ba Dakar c'est parce que euh, Tapha Tine dama ko suivre de ci kalaafu 2000 2007 bi bu Gaston bi 2006 2007 la saison 2006 2007 donc euh, à cette période man jën ko xamoon sax Tapha voilà donc euh, ci la sama ci la def deux combats am de deux défaites ah, une victoire et une victoire sur Yekini junior suma frère ñëw fi ne ne pourtant grand ki ngay wax nii suñu doom la de man xamoo mais bool bool man gis bool bool la man bool bool la aussi parce que maa ngi juddoo Paco Lambaye ru ru Tëlbiak foofu laa juddoo fa laa yoroo fa laa donc euh, ñun suñu mbokk waa ceeb la ma sama turandoo waa Mbalmi la sama papa waa Touba la Mayel Andang donc je crois que je suis di Bawol waaw yàgg naa Ndakaaru ñu yàgg na xale la mais je suis Bawol Bawol à 100 pour cent sama yaay ñoo ñaareem la. donc euh, donc Bawol Bawol defe naa du bu du bu rax donc euh, je crois que tey bi ma nekkee si ci loolu laa ne kat ah kii de vraiment war nañu ko mën jàppale quoi. comme ça hein, ça m'est revenu comme ça. donc euh, parce que bi gabarit bi bi taay bi bi. boobu lan moo la ci lan moo ci gënoon poussé da nga gis mu ak taay bi gabarit bi ak ni ko gars yi di daanee mu xaw a yomb nga ne mën na su ma ko jàppalee am lu ma def ci moom wala. non non j'avais une lecture j'avais une lecture parce que vision bi xam nga euh, en matière de sport da ngay dañuy wax loo xam ne mooy jàngal observation. donc boo jàngal observation. di nga mën a xam nooy analyser di nga mën a xam nooy defar synthèse di nga mën a xam nooy joxe ay orientation pour développer benn athlète fekk man aussi am na kon ni ma la wax am na samay diplôme mais booba làmb amagoon ama si woon diplôme mais au mujj football en en tant que préparateur physique en tant que entraîneur en tant que technicien je crois que dama doon amalgamer le travail physique le travail technique et le travail euh, pratique donc loolu lépp dama ko doon avec une je faisais des des des courses tous les matins de huit kilomètres avec le l'équipe l'ensemble de bataillons d'artillerie même soit à Dakar ou bien ñu génn à l'extérieur il faut que ñu def tous les matins ce qu'on appelle la sport euh, le collectif xëy le matin de un un coup euh, une course de de de de huit kilomètres de dix de douze à dix kilomètres donc tous les matins et donc durant toute la semaine donc mais bien bien gra day euh, am graphique. c'est pas tous les jours nga 8 kilomètres parfois tu fais 4 kilomètres 7 kilomètres ainsi de suite à la fin tu fais d'autres exercices pour permettre que tout militaire yi xam ne nañu ci équipe bi c'est-à-dire mooy sur sur la batterie ou bien sur l'unité mën a am au moins l'effort physique qu'il faut parce que piñ nekkoon tu prends des canons tu prends des obus ak yeneen ak yeneen matériels yoo xam ne nii tey physiquement boo taxawul donc euh, doo ci mën liggéey donc loolu nag aussi ma je me suis euh, pourquoi autant pas ne pas quand même aider aider ce gosse sama frère ñëw fii Moussa Diagne nga ku may nuyu encore de passage nekkoon euh, de directeur Dakar Midi à à cette période ñu bokk ndey ak baay nekk sama seen frère respecté ma lool na ma a grand ma daal dem am wis benn booy bëggoon nga jàppale ko quoi mu ñëw fii ak papaam ñu toog waxtaan. Euh, c'était la première fois ma gis ko xaw ma ko woon je n'ai jamais vu approché may Tapha Tine may Omar Diagne ñu daal di nuyonte waxtaan donc euh, euh, ak abu Ndiaye Tine dama ko ñëw nga nga jàppale sama sa sama doom man amul problème ma jóg. moment boobu jeexal na. boobu saison pratiquement saison bi je crois boobu jeex na. su bi mu jugee foofu prochain combat moog booy sëy la woon. non non non non bien avant après combat boobu moom Bazooka la que moom Bazooka. jël boobu commencé bul ak Bazooka parce que après comba bi mu pare ci tournoi bi bo booy sëy la daan. la daan après non non tournoi bi tu booy sëy c' bien avant tournoi je si bien sûr après après. après calaf bi la voilà boobu bi ngi écrit bi bi ñëwee ma dem gis euh, samay xarit parce que armée laa woon laa ma dem à l'ASFA gis Alexis Tabarez boxeur xam nga ko. non voilà il était à l'équipe nationale il était à l'ASFA donc euh, mi ngi dëkk fii amoo siis maa ngi koy remercier di ko nuyu de passage gis Cheikh Sadibou Senghor ndem si yàlla si yàlla ko yàlla xar àjjana mu yoroon ko à la salle de musculation au niveau salle bi nekkoon paas euh, mooy salle bi waa douane ñoo ko moomoon gis seet ku mel ne Ousmane Ndiaye yoroon ko judo nekkoon aussi en même temps en équipe nationale nekk à l'ASFA donc il y avait au tout autour de Tapha Tine donc loolu Sénégal ñu bëri xamuñu ko su ma ko leeralul defe naa ne wala moom wax ko wala euh, ñoom Alexis wax ko defe naa kenn xamu ko donc ñun ñeenti ñoo ko yor. tenir une réunion ak moom à l'instant même mu taa ma taa ñu daje fa ñu toog on a fait une réunion def fa un plan de travail pour accompagner ko donc graphique bi nga demee du tuy au jour ku si nekk am nga heure boo war liggéey ak moom ak jour bi nga liggéey ak moom bon le soir ñu bàyyi ko mu dem à son écurie mais bi ñu demee ba xam ne la commencé woon na am deux semaine trois semaines donc mu am commencé am absence au niveau de de son écurie donc absence boobu aussi ça a un peu joué ak suñu ak suñu diggante ak moom parce que xam nga mbër boo ko yoree mu toog ay jamono gisatoo ko donc xaw nu booba man boobu sax ay écurie mii nu ma leen c' était la première fois ma ne ko donc nañ dem ma xool nu ngeen liggéey ma ànd ak Ousmane Ndiaye ak suñ benn cousin wu tudd Góor Ndiaye ñu ànd joxante rendez-vous ak Tapha Tine quelque part ñu ànd dem à l'écurie traversé écurie Ndakaaru bi dem seen écurie dugg xaw ma fa kenn. mais nañ Diouf Diouf laa ma xamee woon parce que ñoo nekkoon doon pàkk ba pàkku la mbay xañ na moom xamee wu ma xamee naa ko ak ñoom Boy Kayre ñoom Paate ñoom Serigne Ndiaye ñoo dëkkoon pàkku la mbay bi nekk euh, avenue président Lamine Gueye donc man xamoon naa leen parce que dama daan jóge Rubis su mu wàccee vacances falan falan nekk donc ma xam leen diggante boobu nag bi ñëwee toog ma ànd ak Ousmane donc on était à xool la séance bi séance bi jeexee mu ne ma xaaral ma la sama coach yi ci la ma présenté ak euh, Ibra Diagne ñoom ñaar sax vraiment euh, je les remercie parce que ñoo la fa njëkk xam ci ci ëskanu ñu diggu ci làmb ñu toog waxtaane ko mel ne leen nag lii ak lii mu yëkkati woon mun nañu kaala mu yóbbu leen ci responsable yi ñu jóg dem seen responsable yi ce qu'ils m'ont dit xaaral ba le président ñëw bi ñëw donc bàyyi bi numéro si si si c'est intéressant donc dañ la moom xëy na peut ñi il n'a pas man exactement lan moom andi mais un problème ma laay ma laay dina ko ok daay tàggoo ñoom daay dem bon je veux dire aussi ça aussi donc bul yàq sa sa sa sa sa environnement parce que yaa ngi ci benn écurie boo xam te ne nii booba souvent le matin mu ñu entraîné moom dana àndaale Birahim 2 Boy Dieye euh, Malien euh, un benn cousin bu tudd Adou Mbaye euh, Socé Mané donc bariwuñu woon ay si faisait six ou sept le bu ñu def le travail le matin il faut mu indi équipe boo xam ne ma liggéey ñoom ñooñu wala leen xamee mais bi ñuy paree ci loolu ci ci année boobu c'était en deux mille euh, deux mille huit ah deux mille huit man ci la ci ci fin deux mille sept fin deux mille sept bon ci lañ taxaw ci laa wax ñoom avec Alexis donc di manque le gosse commencé nañ am quelques manquements retard au niveau de son école yi lañ ko libéré comme ça mu continuer après saison baa ngi tëj ñu xool lu ñuy def. daal di bàyyi à deux mois après ñu woo ma ne ma dafa dafa am dafa am combat contre Basuka boobu man fàtte naa sax li jëm ci ay préparation ay ay làmb ak yooyu dematuma voilà donc génn naa ci sama frère bi ñëw na ma woon il faut ñëw làmb ja grand ñu dem ñoom seetaan yi et je me rappelle depuis bi ma bàyyi woon seetaan làmb sax depuis ay arène bi ñu ñun yàgg na ñun Mbaye Guèye gi Tafa Guèye daan naan seetaan mais toog naa presque plus de dix ans xam ne du ma làmb presque. ba ma xëy un jour rek ñu ñëw fii def une réunion daal alors dañuy monter une écurie donc sama papa boobu ma fii la toogoon. ci la jógee Bawol di Mbooloo. ci la créé ci la jógee nag loolu ci la jógee voilà te ñëw nag bokk écurie Bawol Mbooloo mais en tant que en directeur pas en tant que directeur mais en tant que préparateur physique mais autant que bi ñuy commencé ma jóge fii. dem j'ai fait une réunion avec les entraîneurs yi xam ne ñoo fa nekkoon ak les instituteurs d' abord am connaissance ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen ñëw naa si écurie bi nii ak nii lañ bëgg a liggéey ak ak nii ñu ma d' accord problème donc euh, jiitul ñu topp si ku nekk am ma jox ay tâches ku nekk am looy def mbay ndawaan woo ma ne ma ah grand gis naa benn benn école ma ne ko fan mu ne bopp ma ne ko fan mu ne ko ñoo xam ne dara du ma jëli ko ñu ànd xool ko. dem gis directeur bi waxtaan ak moom donc il faut faire une correspondance ñu adresse ko président bi ñu def une demande parce que loo gis dans dans la vie day am administration boo amul administration rek du jàll ñu def une une demande administrative jox ko directeur bi vraiment mu nekk lu baax social ak accompagner ñu defar fa defar fa bay bayaat ko indi suuf yokku si environnement yi defaraat peinture ainsi de suite comment s'entendre la Baol Mbolo vraiment a été une écurie très organisée par rapport à cela. Bon, je me suis dit que moi, en tant que euh, développement management du sport, donc j'ai vu que le travail quand même, mënuma ñëw rek def un travail physique à Massissane, mais il fallait faire l'organisation, l'organisation interne d'abord. parce que quand boo amee benn structure il faut que def benn structure partielle d'abord def une piste de progression certes une structure de finition à cette période je faisais en même temps de secrétaire général parce que le secrétaire général finalement l'un a voyagé l'autre était retenu donc euh, c'était Ablaye Niang pratiquement moom aussi ni euh, au niveau de la fédération activité am dañ ko ba mënuloon ñëw ma def cumul bi donc je faisais fonction office d'administrateur office de, de, de, de technique ah, en même temps je me suis dit que ne pourquoi pas au niveau de la communication parce que def naa communication donc moo tax sortie yu bëri man def voilà maa ko def donc les gens me prenaient même au début pour un journaliste parce que le temps nga may def un travail bu nit ñi ñëw ma rocceeku nekk si biir groupe bi wala ba nekk feneen donc def un travail de d'arrière plan pour pour bañ bañ a mais au fur et à mesure euh, yàlla ñu aussi ak l'équipe bi ñu nekkaloon au niveau de la boxe comme Diatta on avait recruté Mamadou Diatta il nous a mis en rapport avec euh, avec euh, euh Samy Samy Fawaz aussi qui sont de Colobane qui habitaient Fass euh, saw Sow je crois donc ñoom ñëpp ku si nekk nekkoon na équipe boo xam te nii nekkoon na équipe am am solo la ñu xeexee nag nag daal am am combat avec le euh, le manager Mbaye ak Abdou Diouf ci ñu bëree Abdou Diouf daan ko ak Cheikh daan ko bëre ak euh, trois non Elton d'abord. Elton après Bombardier après Tapha Tine. Euh, après moment boobu moment boobu dañoo gisoon benn Tapha boo xamante ni amoon na physique Tapha Tine mënoon na boxe maanaam physique li nga xamante ni doon nañ ko wut ci mbër da nga ko doon gis si Tapha xam ne athlète la. naka ngeen doon liggéeyee ak moom ba combat yëpp da koy da koy da koy bëree xeex ko yàlla may ko ci ndam mais ñu dem ba benn moment bi gis ko mu bëre ak Bombardier xeex bi saxoon trop ci moom. bi ñu ci jógee ngeen am ki nga xamante ni mooy Balla Gaye mais bi ngeen amee Balla Gaye 2 coow li dafa bëri woon ni coow li bëri woon mooy euh, combat bi taxaw na ñu dawal semaine semaines wala boo quelques mois ñu dégg la nga def sortie Balla Gaye na ma bàyyi comme si fi la fi la Tapha Tine nekk ou bien boog yow yaay bëre ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye coow li bëri woon loolu lan la woon. non en effet euh, boo gisee Tapha Tine am match de progression gis nga un il faut mu am benn graphique. parce que jóge na si un tournoi de benn combat après de benn combat daanu donc psychologiquement il n'y est pas donc il fallait reprendre tout reprendre un travail foncier parce que li ma ni nii c'est bon c'est technique ah ñi may ñiy déglu nañ xam tu te fais un travail foncier tu enlèves les qui sont dans le corps parce que corps boo gis ñun ñëpp am nañu ay déchets donc génne les déchets génne les urées et tout defaat un travail de sap donc yooyu bu génnee la commence à travailler maintenant sur les endurances nga liggéeyal ak moom ay endurance fractionné ba yaram bi commencé ko nangu nga liggéey ak moom ay endurance continue donc li nga ko doon daggal léegi doo ko dagg da nga koy da nga koy boole dajale boo liggéey deux fois vingt cinq minutes da ngay boole benn ñaari vingt cinq minutes muy quarante minutes ni ma la ko mën a expliquer daal. donc moo di temps de récupération boobu noonu am foofu da nga koy boole donc mu am endurance bu gudd. ah donc sinon mën naa ko entrecoupé sax sinon je suis en train de donner un cours de de leçon aussi xam nañ ko baax maîtriser nañ ko bu boo jógee ci loolu nag nga dugg sur la résistance donc nit ki pour mu am doole il nga jóge ci endurance pour dem résistance donc tant yaa ngi dem ci résistance l'endurance tout le temps day topp toppaay boobu nag mooy nga def ay résistance volume résistance intensité résistance récupération xam nga ñetti résistance benn bokku ci. donc te sa booy bëree à chaque instant bëre bi soit mën na gaaw mais am na agent bu nekk résistance bi ci ci forme ñett yi forme yi ma la wax bu si nekk am nga ci looy joué combat bi la gën a durer nag la récupération mu tenir donc le rythme cardiaque bokk na aussi sur le travail booy def sur les réactions sur les vitesses sur les réflexions yooyu daal donc loolu lépp ñu boole ko jox ko Tapha mu am des assises am appui plantaire tànk yu dëgër donc yëpp des exercices yoo xam te ni c'est c'est c'est c'est c'est dans la préparation généralisée donc il faut nga préparation généralisée pour mën ko def defal ko athlète bi dafa yaram bi nangu mooy si il a accepté de subir ba bii dafa liggéey aussi il a accepté vraiment de travailler dur dur dur dañaan toog mu jooy ma xam wóor na ne kii yi mu daj metti na parce que boo nekkee soldat ñu lay bayutee di la manœuvrer nga ñëw jël un civil li ko def moo supporté ko si biir ko ba pare di ko di ko digérer je crois que ku nangoon exercice donc exercice boobu moo ko mayoon tey mu am doole boobu ñëw àdduna bi ko soow ba pare ñu am aussi des ateliers de de boxe parce que bu ñu fàttalee Alexis Tavares moo commencé ak moom donc leçon de base dafa bokk si carrière euh, carrière nit ñu jóge ci loolu euh, Diatta di Diatta ñëw liggéey ak ñun ci loolu ak y' a d' autres qui qui sont qui sont un peu avant avant Diatta di ñëw après Diatta a fait juste un deux ans avec nous après il nous en rapport avec avec euh, Samir donc ñu continuer sa une phase ci lañ continuer si exercice yooyu donc gis nga marge de progression bi wax donc Tapha était dans une fourchette de travail euh, par des des professionnels parce que amul kenn koo xam te nii tey nekkoon na si cadre boo xam te ne maîtriser wul métier donc ñun ñëpp dañ bokk ba seulement jigaloon pes mais dañ nekkoon équipe boo xam te ne ñëpp dañ ma déggaloon joxoon ma cër joxoon ma vraiment un respect et le respect aussi était mutuel entre man ak ñoom et puis y avait la confiance mutuelle qui était nii y avait aussi Mbaye Nawad qui était chargé de la lutte au niveau de de de l'écurie y avait Daouda bu ñu daan am salle de musculation moo laa doon désigné mu dem su ma amee temps mu fekk ko fa ñu assister ko à la salle de musculation certes les salles souvent les lutteurs gis nga ils salle mais ñun aussi amoon nañu visibilité di xool di ko topp ba xam li muy lan la. parce que man entraîneur de si les salles de musculation am na ci ñoo xam te nii xam nañ ko am ñoo xam ne xam ñuy def parce que ku jot ubbi salle ku nekk ma na nekk un de salle mais lan nga wut ci mbër bi lan nga sox ci mbër gi parce que mën nga wut ci mbër gi ne dama koy chargé dama koy liggéeyal mais bal charge parce que ci charge yàlla charge buure buure dem ba sey cër mënatoo taaleeku musculé wu say cër mënatoo yëngatu yàlla charge propulsive la yàlla charge explosive donc ñett charge yëpp bu fekkente ne l'entraîneur mënu ko boole jàngal ko athlète bi je crois que di ko indil ay lenteur ay yeexi yeexaay yoo xam ne ci action doog mën dem mais tawa heureusement yooyu yëpp di gën a suivre sur les étirements ak yooyu. li ma ma ok li ma bëgg ñu waxtaan ci làmb dafa xaw a bëri te xam naa ne comme que danga ngaa yàkkamti euh, dama bëgg ñu briefing ko tuuti rek. léegi bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi mu defee série de victoire parce que li ma dégg nga lim ko fi yëpp am na lu ngeen jot a moom ba moom prouvé na loolu. Mhm. mais bi ngeen jógee ci loolu daan Bombardier am ci combat yi nga xamante ni yow ak Balla Gaye combat boobu defoon coow euh, ba làmb jooju ci la njëkk defee ñoom ñaar ko ci nekk euh, euh, génn ci single way ci làmb ji ah da ngay yéeg PC du ma yéeg PC sol ko sim làmb ji def coow mais après yow dañ la ci dégg man loolu daf ma ci xawoon jaaxal parce que bi nga xëyee ne tuur nañ deret sama bundu kër toj nañ fi ay nen nangam nangam comme si yow yaay bëre ak Balla Gaye loolu lan la woon dama bëgg nga ñëwoon ñu ci tuuti. les dama bett sax les images sont mais c' est pas Balla parce que parce que wax naa ko wal Walfadjri mhm. su ma jëmul dem naa Walfadjri parce que tooñ baaxul. parce que nit yi boo gisee ne diw ak diw ñoo rek lu ci mën a xaw dañaan diw la. alors que comme la première question da nga na yaa ngi dëkk Géejawaay mhm. bàyyi fa ay écurie bàyyi fi euh, nu mu tëddi dóor dóoraat bàyyi fi Balla Gaye golf gaynde waalo ainsi de suite dem Dakar c'est parce que relation la. Mhm. mais man aussi dama ne naa ci njëlbeen ne man je suis coach dama am culture sportive dama jàng ci sport sport am na noo koy jàngee pour nga am ci yenn jafe-jafe yi du bari mais am na noo koy noo koy jàngee da nga yaakaar ne lii rek mooy dëgg parce que l'entraîneur du football de que mën na changer de de d'équipe autant qu'il ba mais souvent entraîneur mbër doo dégg mukk entraîneur mbër bi jógee ne yu dem fële bariwul à part peut-être latu parce que am na au moins am na liste boobu bu ko neexee mu am. entraîneur bu jëm bu ko neex tey bu ko neexoon tey Pambay bu dëkk Ndouchi dem entraîné nañ Balla Gaye booy ñaam bu ma neexoon tey tey mën a entraîné ji Mbaye Ndawaan tey mën a entraîné ji la dëgër donc loolu war na mën am ci làmb mais souvent gis-gisu supporter bi moo dul demee noonu alors que làmb discipline boo xam ne nag comme discipline yëpp la mais dañ ko bëggal étiquetel benn loo xam te nii fii nga bokk fii nga far mais yàlla xam ne ni lii ñu may wax nii c'était pas Balla Gaye wax naa ko c'était des jeunes. du golf man dem naa ba dégg ba xam leen du golf ñoo doon def aspect de de sabotage di xëy le matin def ay ay béjjén deret sama oto su et tout ça dama ko nëbbatawaatin dama doon xëy le matin oto bi tax deret ba ñëw dugg ci oto bi ñëw gaar ko fële ñëw entraînement ànd ko pare ñibbisi ñoo raxas sama oto du ko sax yëg. parce que ñoo bëggoon déstabiliser c'était psychologique. c'est bataille psychologique la woon croyant que man dañ ma ma def yenn yi àll en réalité ça en réalité c'était pas ça ba dem na ba sax waa koñ bi bëgg na non non bàyyi leen ñi man la ñuy def mais defuñu leen bu ci kenn wax. mais bi nga bi làmb ji ñëwee. Euh, Balla Gaye bëreeg moom combat bi yomb ñu daan ko par rapport combat yi ki woon euh, naka nga ko gisee yow. non un résultat c'est normal parce que boo xam man ba dama am. <laughs> ñu jàngat làmb ñu jàngat sport da ngay gagné mbaa ñu gagné la ñu leen gagné naka laa gisee mais a chaque après nag ci nga jàngat lu tax nga naan daan daan nga c'est pas l'engouement ma la yóbbu mais da nga seet lu tax ma daan da nga daanu da nga lu tax ma daanu donc un athlète c'est un un entraîneur waral moo nekk ay vision loolu la ñu jox le débriefing gagné lu tax ma gagné ban moment laa gagné ban moment la laa am sama temps fort ban moment laa am sama temps faible ban donc lu ma manqué ci liggéey bi donc ci la war liggéey mais malheureusement ci la combat bi yem ci ci ci la taxal ko chacun est resté de son côté donc euh, amul jàngat ma ñuy jàngat man jàngal naa ko sama bopp xalaat naa ko sama bopp seet lu tax ñu am ci défaite donc euh, y a l'aspect confiance en soi l'aspect qu'on met en soi. Il a l'aspect, certes, de beaucoup de gens disent mystique, mais moi, je ne crois pas à ce qu'un mystique puisse faire gagner quelqu'un, je ne pense pas. Sinon, kon kon tey kenn du daan ci làmb ji parce que mbër boo dem ci maarabu mun na la daan. mais sa diggante ak moom euh, lan moo ko jeexal parce que ma juumul am nga lu bari loo xamante ni euh, def nga ko ci moom nga jékki-jékki mu am defet yaakaar naa daanaat xaw ma affaire yu demee noonu ngi jékki-jékki après ku ne toog jàpp sa njàmbur lan la woon. and ànd boo gis euh, souvent c'est comme ça parce que Tafa je l'ai connu moom nga xam moo nga xam bi nga xamante ne moom. c'était juste à cette période comme il avait des difficultés indi ma ko ma accompagné ko am quatre victoires une défaite donc souvent euh, li ñu koy mën a wax moo di peut-être euh, cycle boo gisee jeex mais lowuñu Tapha Tine reste toujours mon fils il reste toujours mon enfant il reste toujours mon ami donc amul lenn lenn lenn lu taas suma diggante ak moom amul lu may taxal amul lu ma koy taxal. mais bu loolu jàllee noo gisee état dafa moom. nii nii xam nga expliqué parce que xam nga nit ñu bari dañuy interpréter loo xamante ne euh, gisuñu ko. parce que boo ma jógee en 2012 2013 effectivement. toog naa une année sabbatique mais bu fàttali ne en 2014 Lamb Académie dañu may yóbbu di te GFM euh, ma àggale seen seen seen seen concept donc mooy ñoom Cheikh Tidiane ak euh, ñoom Léonel hmm, ñoom Souleymane Sarr ah ak ñoom de gosse mbay de de des Tigres donc ma àggale concept boobu donc en 2014 donc ça na ba tey maa ngi ci ji voilà mais bu ma beneen mbër woowoon wala ñoom ñu soxatal mu waat ma ñu war a war a dem sur des critères mais moo ma damay dem ma dem su ma bëggul dem ma dem et en entre temps y a de lutteurs yoo xam ne woo nañ ma pour ma kër mais dama ne non je préfère non je préfère faire autre chose parce que dem naa fa temps boo xam ne nii xëy na naa fa lu bari fexe am naa fa samay diplôme donc naa ko delloo encore askan askanu làmb yaa toog ba 2016 2017 CNG oo ma ne ma kat équipe bi Dakar day dem drapeau chef d'état yoo leen koy dénk et pourtant ñu fi nekk ci entraîneur bari mais bu ma tànnee ne ma kaay yóbbu équipe bi donc je crois pas que tey période boobu man war naa mën a yor écrit parce que sama concentration fa lañ koy jëlee ma nekk fa liggéey ci ak Ibrahima Mbaye ak équipe bi ñu nekkaloon def suñu sélection yàlla dimbali ñu 26 ans après ma indi fi drapeau sur l'état ak équipe bi à Kolda waaw donc ci la ñu gagné Fatick donc deuxième année bi ñu dem en 2018 ñu dem Mbour. ñu demaan encore dem jusqu'à finale donc deux années successivement ma final ko bii ma gagné ko bii ma perte ko donc je crois que mission bi ma CNG dénkoon aussi euh, jëm dinaa sama capital taal de dinaa ci def naa ci li ma ci war def ba yàlla jox ma ci benn médaille d'argent ak ak benn médaille euh, de comment s'appelle d'or voilà donc loolu je crois que mission boo xam te nii bu ma joxoon la 2019 bi làmb amul bëri amul donc ñëpp a taxaw donc loolu moo waral tey amul kenn ko wax ne affaire kii mais loolu loolu donc semble yi que ne génnuma ci ci làmb ji donc fi ne niveau bi ñëpp amul kenn ku nekk dans l' activité de la lutte fekk na nag man en 2016 anticipé naa suma su su le travail du football nekk si club yi ñu reconnaître en 2019 donc qu'est-ce que je dois faire enchaîner avec le football et en tout en essayant créer d' et gis nga la lutte derrière je vais la lutte incha allah mais waaw non lamb moom génn nga ci mais dinaa ci ñëw père génn na ci làmb ndax kenn gisatu ko boobaa ak léegi mais bu loolu jàllee noo lool moom père doo ko bañ non defal ndànk père per loolu moom loolu moom il faut nga may ma ko dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw damaa damaa bëgg nga tënkal ma lii tuuti rek ñu ñëw ci loolu euh, bi nga jógee ci loolu yëpp génn écurie ba moment bii nii naka ngay gisee euh, Tapha Tine moment bii physiquement entraînement lépp nga ñëw ci loolu tuuti rek ñu daa ñu doog a jàll ci lee waaw non non parenthèse bi dama fàtte parenthèse bi duñ ko fàtte dinaa ci ñëw su ma ci ñëwee duñ ko fàtte waaw parce que état de forme Tapha ko gisee moment c'est-à-dire que xam nga li may wax xaw sànq wax naa la benn graphique de travail benn plan bu ñu doon def ak moom donc ça implique ne donc ça devait devait une continuité en 2013 2014 ak bi mu bëree ak euh, le tournoi TNT donc après c'est la am euh, une défaite de victoires et donc c'est c'est c'est logique c'est normal aussi championnat la il faut que ñëpp ñëpp mën ñu gagner il faut que kenn gagner ñi perdre ñu nul il faut que mu am benn victoire kii ko kii jël c'est le champion mu moo gagner donc bi ñu des après ci la bëre ak. Euh, Yékini junior à à à non non donc bàyyi ma donc amul làmb bu ma demul làmb bi ba ba ba bi am bi ñu arrêté Covid bi ma ngi bi bi moo tax ma ne bàyyi ma làmb. non amateur nga fa demee rek mais pas comme coach non amateur parce que ngay dem consultant. non j'étais la 2S boo tax ma ne xamul ma dem naa 3 ans à 2S Bantamba TV wala nekkoon boo dugal Google nga dugg ou bien nga dem YouTube nga def Bantamba TV à l'affiche di ma gis nga dem Bantamba TV les informés di ma gis nga euh, dem Bantamba TV rencontre avec di ma gis donc. ba naa benn émission boo doon def sax en français. boobu laa lay nag donc maa ngoon ba donc bàyyi ça peut que ba dans l' activité écurie mais maa ngi ci beneen activité donc maa ngi ci activité consultant télé bu ma oo ma mais bu ma Tamba ba 2S ooyee yóbbu ma Bantamba TV gisatoo benn télé à part peut-être invitation. te bala ma faa dem invitation je demande l'autorisation d'abord la permission d'y aller lorsque loolu le Sénégalais euh, di fàtte souvent da ngay jékki-jékki rek maa ngi dem bërëb sàngam ñu war nga dem alors que kilifa gi la fa teg bu la gisee télé boobu tu fekkul tàggoo ko yëgaloo ko mais lu mu la yàq tooñ donc il faut avoir une autorisation lii may dafa yow nii nii nii nii j'ai demandé autorisation malgré je le président mais wax naa ci ak samay sama équipe démb j'étais avec Guédiawaye Info sama terrain la ñu fekk ñuy waxtaan mais le bureau xam nañ ne maa ngi ak foofu est-ce que comprendre nga voilà mais ba léegi yaa ngi biir 2S. non non 2S euh, bon donc avec bi Covid bi am au mois de février février dañ y avait problème de programme de changement de programme comme les comme télé yëpp ah dañ jékki-jékki un arrêt. def def benn évaluation xool euh, exactement ce qu'ils ont fait durant ou bien pendant six mois naa fa de 2017 je crois jusqu'en ah, je crois que loolu bu ñu évaluer donc il y avait un changement de de programme euh, changement euh, de de de de plateau il y avait beaucoup de variantes là-bas ils que le personnel soit revisité et puis émission bu la woon. amatul sur le Bantamba TV ñu def ko wàcce ko sur la 2S jox ko Bécaye Mbaye qu'on félicite parce que ku ku def dara ci lam ba le noo Bantamba jóg ñu delloo la ko je crois que c'est du mérite. voilà donc moom moo nekk Bantamba TV ñu ko ñaan yàlla aussi mu ko mu doxal ko comme comme il faut comme ni ko ci émission yi voilà te vous la voyez souvent accompagné Modou mbay sur le plateau de Bantamba voilà mais Bantamba TV. bi nekkoon si si sur le réseau canal ma nga ba léegi mais ce n'est plus en français man en français laa ko doon def mais Bécaye ñëw na bu wàcce ko bu def ko wolof voilà. léegi noo gisee làmb. bon lamb ñu ngi gisee c'est comme l'ensemble des disciplines parce que Covid moo ñëw indi loo xam te ne kenn xaaru ko woon mais les gens voyaient venir parce que lu jóge Chine mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi ñëw ba daana si ñu ko en deux en mars. donc euh, à la veille de de combat de deux combats sax benn bi arène nationale benn bi Bargny ñu arrêté ko donc c'est obligé maa ngi topp làmb voilà donc le le samedi là boobu maa ngi woon stade ma euh, affaire bi wàcc le lendemain bon tout le monde ñëpp ñëpp yem ñëpp kenn ñëpp toog yow mii reporter boo demul kër jàmbur doo doo doo am émission boo seetlu neexalu mbër doo am émission ah donc làmb amatul mbër amatul mais nag je demande au CNG d'anticiper ñu def li ñuy wax ay jauge essayer d'abord par la, euh, la lutte simple yóbbu à la nationale choisir au lieu de au lieu de cent peut-être mën na jël un nombre un peu réduit soixante soixante-quatre def un tournoi donc jauger chaque lutteur ànd ak benn benn benn accompagnant benn benn accompagnant mu doon sumikaay même kii ànd moom amul droit pour wër donc ñu jël les mesures d'hygiène qu'il faut bu ko defee je crois que ci kaw tribune yi tout au début peut-être la première journée mën nañu bàyyi noonu peut-être les autorités de la lutte ñu nekk fa les managers les entraîneurs les les gars du CNG nekk fa mën a observer peut-être d'ici deux trois journées ñu mën a may mbër bu nekk sax au moins peut-être trois quatre cinq ñu nekk ci côté mi di espacé là jauger pour voir exactement ce que ça amène et puis le public aussi c'est-à-dire que euh, supporters yi làmb jàngat aussi que euh, la culture sport dafa am lu mu laaj mais pas yee ci ay chaise di ko di ko daj ji Europe ñooñu gën am nañ mais il ne mérite pas plus que nous. mais est-ce xam nga li nga wax ni euh, idée la parce que ñoo ngi wax huis clos bi ñii nangu nañ ñii nanguwuñ mais ci lu simple bi nii nga ko waxee buñ ko essayé deux ou trois fois dina mën a may accès promoteurs yi ñu ñemee huis clos bi mbëri tamit accepté bëri ko. waaw mais même huis bi ci laa doon jëm nii xam nga da ma naka sax ci laa doon jëm donc dama parler de jauge essayé par nombre petit nombre gis nga en day jékki-jékki 1000 mille 3000 mille da nga dem ba si yaakaar sax stade fees na en France la même amu fa sax en Italie tu ne vois même pas donc donc ainsi de suite après yu indi ay 2000 3000 donc di di dugg ndànk-ndànk mais tout en prenant des mesures mais naan n'empêche que Covid bi am am na ñu muy topp am na ñu muy dugg. loolu nga wax noonu idée la te. bokk na ci loo xamante ni nii huis clos bi ñuy wax loolu dina tax sax huis clos bi mën a démarrer. oui moo moo tax ma ne la il faut ñu commencer par ce qu'on appelle juge bi mooy mooy jëm a laal xool ba xam testé làmbatu natt bu ko defee je crois que pas que tey lamba dina am problème pour avoir le public de de Adrien Senghor ils sont sages ambiance génn xaalis mais kaf foore ñoo jëm comme pecc ko tribune yi donc y le comportement d'abord du du supporter mais euh, nit ñi dañu jël bëri ak dóor kese teg ko ci kaw alors ko bëri simple moo tax man moom ma daaxal. man bi ma fay njëkk a dem nangootuma dem bëri dóor ndax da nga gis amateur buy seetaan ba ci yàgg wàcc fecc ba mu neex ko mu maye yéegaat toog. te bu lu seet sax parce que dañuy xam mais yow fii dangay gis ku wàcc jël suuf si xëppoo ko yenn mbër mi daal dóor ci suuf ah jël ba jël jam kee non mais donc voilà donc doo comprendre donc si vraiment Serge dañuy dañuy dañuy nangu loolu. li Aliou Sarr doon def Bira loolu la war di continuer di yar di sanctionner moo tax il est bon aussi de de repérer les écuries repérer leen d'abord xam ñan ñu identifier ñan ñoo bokk écurie bi ñu identifie leen bu baax a baax pour ëllëg bu amee problème ñu mën leen sanctionner même la sanction mën na nekk pénal parce que y a des xam ne tey ma ngi gisoon naa un supporter mais ñaq jaruñu kii Aliou Seye mais ku taxaw saaga Aliou Sarr mais c'est c'est mais ça c'est de l'indiscipline sa autorité yi nga di ko saaga mais xam nga kooku vraiment du sport ku dund sport doo def loolu alors que en réalité da nga war a ñëw supporter sa mbër daan nga kontaan ñibbi sa mbër daanu daa ko di nga mer mais cher digéré ko ba sa kër bu koy daanu koy yow mbër mi daanu nga war a mere. kon yow su ma déggee wax ji mooy sanction yi Alioune Sarr teg ci diggante Alioune Seye 2 euh, ak ñàkk jaay ñu euh, ànd nga ci. non parce que loolu gis am na sanction parce que c'était la débandade c'était la débandade parce que nu nous encadreurs autant que amuñu yenn yenn comportement yi par rapport ak yenn supporters et tout le monde venir comment tu peux voir quelqu'un keneen daw ko dab ko. xëpp ko xëpp ko saafara xaw ma jam ko xeex ak moom foofu. doonoon est-ce que loolu yoon la ko yow mais mais c'est normal parce que journée jàmbur lañ yàq. Mm-hmm. et puis bu xoos jëmee ñi nekkoon àll séeréer di seetaan gis nga conséquence bi mu indi dafa bari donc moi je crois que c'était pas les lutteurs du Aliou Seye du ñax jariñ parce que Aliou Seye boobu mi dem ah, kéema nga taxaw fële mm-hmm. mais donc ñaari mbir dafa ñu mais ñi ñu àndal. bu ñu identifié wul mais il faut que sanction daal koo sanctionné est ce que yaa ngi comprendre ma expliqué. donc il faut que ñu commencé teel identifier les présidents d'écurie le président d'écurie ñu identifier ko Ousin mooy président Dóor Dóoraat bu amee benn ju benn élément Dóor Dóoraat bu am ki on appelle Ousin parce que récépissé bi yaa ci nekk ak sa trésorier ak secrétaire général ñu woo la convoqué la entendre la. bu te ne lutteur moo def sanction te muy à tes côtés ñu entendre au bi parce que vous êtes les premiers les seuls responsables. Euh, balaa moom muy muy dem dina mën a xam na mu yabee ay ay xaleem wax jooju yëpp su ko undoo mooy euh, Bira Sène liggéey bu rëy moo ngi koy xaar ko. bu rëy sax non bu rëy bu rëy man si j'étais à sa place damay restructurer écurie yëpp peut-être Covid bi ma tax mais dinaa fexe. équipe bu nekk écrit bu nekk def assemblée général ma am benn assistant. mais instant bi est-ce que loolu mënul nekk ndax benn activité amul. est-ce que dajale leen waxtaan ak ñoom moment bi mën na nekk. no mi ngi concerté mi ngi concerté ay acteurs de la lutte mais je crois que ARES le présidents les les les représentants des des écuries mooy ARES l'association euh, des écoles et écuries de lutte man ci la bi ñu koy bi ñu waaw l'association des entraîneurs moo ko sax jiitu ay quelques quelques quelques mois ou un an comme ça mais sorante wuñu mais donc loolu ñoom ñi ci liggéey liggéey ba mu solo liggéey boobu aral si def il faut que président écurie yi nungul leen bu ñu leen nungulee loolu sanction yi dina mën a teel a am indiscipline bi dina wàññeeku parce que ku ñu repéré sanctionné leen dootoo ñëw làmb wala yooyu dootoo bëre wala sa écurie suspendre nañ ko pour un an ou deux ans je crois yar dina am parce que écurie boo fi un an yi amuñu droit sax dem feneen mbër yi yaru ñi ànd ak ñoom dañ yaru mais ñi ànd ak ji ñoo problème bi et puis sauvegarder aussi le statut des entraîneurs parce que entraîneurs yi dañ ñëw ba stade ba war a indi mbër nga gis ma Samba jóge fële yore ay ay ay seconram ñu ne entraîneur maa toog chaise bi nga yooyu day yàq lamb kooku moom dama xam dara ci règlement xamu sax géew bi ñaata mètre la. sport daal lamb daal la ñu war a defaraat. defaraat texte yi tout dañ ko war defaraat yéeyaa ci nit ñi ñu xam ne sport lii la laaj te ñoom ña fa nekk xam nañ ko Bira Sène xam na ko Ndiamé administrateur impeccable tous les gars qui sont là-bas xam nañ ko ñoom may sa ak ñoom ñëpp may sa tout récemment ak organisé d'appui sur l'État mais une organisation parfaite Bira moo yore équipe de Kaolack Kaolack daaw ñu ci finaliste oui donc ça implique que ñoom ñëpp li ñuy def xam nañ ko mais il faut mu bañ am sentiment cest am na échange am na am na partage mais aussi il faut que les gens sachent que lii moo fi nekk il faut ñu defaraat ko ni nga koy defaraat nag sentiment bu li ngi doon il faut savoir sanctionner comme il faut savoir récompenser donc loolu mënul ñàkk Sénégal nag boo sanctionné ñu ne ngaa soxor boo récompensé ñu ne yaa baax mais en réalité ñaar yëpp ça de pair voilà léegi bu ñu jógee ci loolu dama bëgg nga defal ma quelques analyses ci combat yi nga xam te jot na fee taxaw dama koy njëkkee ci Tapha Tine euh, Boy Niang noo gisee boobu combat. dama la boole tënkal benn benn nga tënkal non dama la boole tënkal benn parce que déjà man en tant que technicien. mu ñu toog deux ans. mbër gisoo ko activité am bëri gisoo entraînement am gisoo aspect psychologique am gisoo aspect moral gisoo aspect alimentation am gisu entraînement nga bëgg ko teg man je fais pas partie de ces entraîneurs ou bien de ces consultants yu joxe ay provisions yoo xam te ne jotagul mais bu fekkente ne nag ñoom ñëpp ne nii yaa ngi soo ko di entraîné kenn gisu leen yow gisoo leen mais gisuma leen li ma ci waxit waxi supporter laay wax wala wax dégg ki ma wax bu mu mën a juger xam ne kii mi ngi ci état état c'est en te voyant à la préparation t'écouter t'observer analyse pour mën a wax exactement yow sa mission sa but lan la mais par rapport à cette situation faire l' exécution li nga xam ne moom moo leen war pour nga wax ko ne Balla Gaye euh, Bombardier kii moo ëpp doole kii moo kii mais loolu wax sa doole wax la neex la kii moo euh, yi sa pourcentage wax la neex la parce que gisoo ci kenn ko nii tey mi ngi entraîné comme il faut et régulièrement au but avoir de combat parce que ba tey des na xam nga ko kañ xamuñ diggante tey ak ñaata mois ñaata jour ngay bëre donc ban préparation nga fiy def donc loo fiy defet maintien la rek ñoom ñi def ñëpp nañ def nii maintien lañ mais le travail exactement qu'il faut personne d'entre eux ne l'a pas commencé pour aller vers un combat. mais am ñoo xamante ni moom ñoo ngi koy def te ñoo ngi wane seen état de forme muy ki nga xamante ni muy Modou Lo ak Ama Baldé même bu ñu waxul euh, des fois nga gis foto des fois nga gis vidéo est-ce que yooyu yaa ngi ci jot. non de temps mais ça l'image l'image souvent ça peut être image bu yàgg parce que les sites day dañuy génn image ma ne image bu yàgg du image image vive image vive boo xam te ne kii da tey tey tey la ko def ñu génne ko léegi léegi léegi ma ne nag image bu yàgg parce que nit ki bëgg na génn bëgg génn gi rek gis un Modou bien musclé bien taillé gis un Ama Baldé avec un sac remonter les dunes nga nga ko ci site bi ne mi ngi entraîné tu te trompes non certainement aussi moi je te dis ji veux pas tomber dans ce piège parce que ñu bari laaj nañ ma ko mais mënuma ci leeral dara parce que yàlla dem na ne euh, combat yu bëri fi am te muy nekk grand combat soit def naa ko 2S soit def naa ko Sen TV soit def na ko euh, TFM ak Malal Junior soit soit soit soit donc grand combat fi am yëpp pratiquement toog naa ci plateau dékkati ko waxtaan ci donc je ne pas tomber dans ce piège ou bien dafay erreur ñun Omès nee na nangam Omès ñii ne je préfère bu ko mbay taxaw ba ñu tey la ñu commencé man dinaa commencé def samay graphique samay plan parce que moi je travaille sur ça da nga fekk fii may liggéey damay am sama ku si nekk mbir bu si nekk am nga am na am naa sa sa sa sa graphique xam naa loo ma ne xam naa sa point fort xam naa sa point faible xam na sa sa sa sa faiblesse naa ko donc ku si nekk garde haute beeg garde basse beeg li ci am yëpp mën naa toog di ko tënkal nit benn par benn mais nag fi ne loo ci waxit day wax loo neex ou bien ngay génne secret secret secret lutteur alors que en réalité ñun suñu mission mooy c'est c'est c'est c'est d'éduquer c'est d'enseigner c'est donner des orientations comme ça nit ki jël ci ay njàngat mën a seet ba xam li nga wax am na la ko si jëriñ mu jël ko ak loo xam ne jëriñu jëriñu ko mu ay manquement la mu yokk ko ñun loolu moo suñu devoir mais mënuñu ñëw di wax ne mbër bi lii mooy faiblesse am te leeraloo ko donc tu le mets dans des doutes donc l'aspect psychologique sa compte laissons le travail calmement et sereinement euh, jusqu'à ce que le CNG ouvre les portes ñu xam ne nag ku si nekk vraiment c'est ouvert là di nga mën dem jël entraînement yi si les vannes mais yéen ñëpp amul kenn ku gis entraînement Modou Lo nii au frais au vif amul parce que ñoom ñëpp ku si nekk am nga discrétion de travail am nga un staff bu lay bu lay permettre tey ngay nëbbatu tey ku dem États-Unis def ay vidéo mu envoyé ko les vidéos que tu vois sur les images c'est c'est différent que la personne debout devant toi donc yooyu mënoo ji mënoo da ngay ngay wax rek mais je je ne pense pas que loolu nekk na loo xam ne tey ñun en tant que technicien mën nañ ci war a man a wax ba askan bi di di ñu dégg daal. Euh, tey moom daanaka dañoo yendu si euh, te xam naa ni boo yaa ngi lay woo te yaa ngi war a dem entraînement boo amoon kàddu yu mujj xanaa fi moom lépp leer na fi kontaan nañu waxtaan bi am na solo bëgg ma woon sax dagg waaye caméraman bi mi signal ne temps bi jeex na soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy dénk ba beneen yoon ñu dellu si gën a yaatalaat waxtaan wi. mooy li may moo di souvent euh, il faut aller tout tout vers l'information que diw nee na ou wax nee na diw nii non le média dafa nekk moyen de communication. de fair savoir de fair savoir et de savoir faire donc loolu mooy indi professionnalisme mbër aussi ñu am retenu par rapport ak attente bi nga xam ne ni tey mooy événement bi am nii seen sorti c'est bien vrai baax na mais aussi nañ ci boole aussi les jeunes les jeunes lutteurs parce que faut pas prendre ju wax rek ne la crème bëriwuñu ainsi de mais les jeunes yi ñu inculquer leen des connaissances fexe aussi ñu mel ni réel ñoom mel ni ñoom jàppale aussi seen i seen président parce que mbër bu gis boobu beewu topp sa toppoo sa sa sa sa sa président je crois que tey am na respect et que nañ jox aussi une certaine autorité une responsabilité à leur chef hiérarchique bu ñu ko je ne pense pas que tey seen carrière dina jaxasoo carrière bu baax la ñu am li ci des di ñaanal askan duñu làmb di ñu fi jógee yal na yàlla xar àjjana ñëpp ñu fi jógee nag en commençant booy bambara Balla Gaye sama xarit Mor Fadam donc bari nañu ak ñi nga xam ne Covid bi yàlla jël na leen na fi yàlla xar àjjana donc état bi aussi ñu leen ñaanal ñu jàppale les promoteur yi nga xam te tey ñoom ce sont les bailleurs de la lutte parce aujourd'hui euh, normalement. fédération du moins la mission du CNG bi xam te ne euh, CNG la war dem fédération déjà ils vont perdre un an ba ba parce que bi ñeen fale ak léegi ça fait quatre mois donc léegi koor gi jeex saison bi juillet mu jeex li des bareetul six sept mois donc noonu la mën évaluer par rapport ak seen mission donc loolu yëpp état na xoolaat CNG aussi gaaw aussi Euh, des orientations aux écuries comme ça yu mën a teel a defaruwaat ma na préparer lutteurs yi ñu bëri dans de dans de très bonnes conditions donc je crois que loolu la soxla boo xëyoo ci làmb ji donc ñaan yàlla rek yàlla def jàmm comme ça ku ku nekk delluwaat ci ci ci la nga nekkoon waaw yéen aussi yal na jàppale parce que liggéey bi ngi def nii yombul. Euh, jël sa temps su dee nga liggéey kii ñi fi njëg a sori na man je m'apprête parce que 15 heures incha allah war naa dem terrain golf entraîner suma suma club je suis pas l'entraîneur principal mais je suis le président mais j'ai des assistants j'ai des entraîneurs donc il faut que ma di leen observer di assister di leen xool voilà parce que boo yooyu boo jiitoo dama naa ne waroo tardé te man à chaque instant je suis le premier à sur place moo tax euh, sànq bi ma dama man à telle heure je suis là euh, jox cër moo tax souvent may xaar mais daanaka à change fekk dem naa semaine bi yàgg y'a beaucoup de personnes dañ may wax à telle heure dina non parce que solaar la woon dañ may jox heure une heure de temps bien avant yaa ngi en place mais boo boo ñëwee sax 45 minutes souvent on te considère comme absent donc ñun ñu yar suñu jikko ci loolu mais heure Sénégal man loolu mun mun mun ma ko nangu. non mun ma ko nangu euh, Sénégal sincèrement ku bëgg ànd ma ci loolu am naa kenn laa xam ne ci civil mooy Ibou Ndiaye mooy Ibou Ndiaye Ibrahima Ndiaye Ibou Ndiaye kooku su ñu doon rendez-vous à 7 heures du matin bala maa ko oo ma maa ngi wunt bi donc c' est la seule personne mais loolu na la gàllankoor nag teel la woote ah man kat circulation bi nangam téye na ma nangam am na est ce que mën nga voilà mais ñun duñ ko def. wala da nga toog damay damay ndékkeeg damaa teel yow sama jaawee rek maa ngi dugg beeg damay génn damay génn tey bu ma amul koy génn ñi nit dugg si may génn mu ne man soxla fekk may dem entraînement bu ma fekkul teel nañ bu dee ñibbi parce que dama dama xaar dama dem liggéey parce que c'est pas du mooy fay donc nit ñëpp xam loolu nag voilà donc maa ngi nuy ñëpp eh, di sargal ñëpp di ñaanal eh, sama mbokk bool bool yi surtout sama équipe bi ma nekkoon bool mbooloo yàlla delluwaal na si jàmm tabatin combat bu nekk yàlla may ko si ndam voilà. gis ngeen ni lay demee di jaajëfal sama cameraman yi du ma ko yàggal benn yoon di leen jaajëfal ak mbenn mi nga xamante ni sànq suba ba léegi moo ngi tëdd ko toog di leen jaajëfal baax a baax maa ngi nuyu Aziz Fashion boom kolobaan di ko wax na ko gis naa yére yi euh, valise bu baax na bii sax ci la bokk waaye di ko wax ne kontaan naa ci moom bu baax a baax dem leen seeti ko Colobane la nekk Aziz Fashion di ko wax ne kontaan naa ci yow yàlla na jàmmam yàgg ak ña mu nekkal ñoom ñëpp di jaajëfal sama cameraman bi di la wax père kontaan naa bu baax a baax ba beneen yoon incha allah jaajëf